mbokki internet yi dal leen ak jàmm ci seen chaîne youtube seen acti tv tey nag di ba fukki fan ak juróom-ñaar ci weerum août atum 2022 dañuy ñëw ak ci li gën a fës ci xibaar yi xibaar yi tey dinañ ko door foofee ci ndakaaru ginnaaw ba ñu jàppee ay góor jigéen ci géeju Besseyaawo bi ñu doon def seeni jëf yooyee ba waa koñ ba ñaaw njot fekk leen ci apartement appartement bu ñu luwee foofee ca Besseyaawo ndax leen door laata police di ci àddoo ñoom nag ñu ngi toll ci juróom benn góor moom fi mu toll téeméer ñu ngi ci loxo lay yoon am na suuf su buy xamle ni nag am na ku siiw ku ci bokk te mu bokkoon ci li nga xam ne moo di seen petit gàlle coow wala ruumanaat mi ngi woy ci biir parti bi di Benno Bokk Yaakaar ba tax na njiitu COSER ñu gën koo xam ci Moussa Sow moo ngi xam ne ni nañu jàpp liggéey te bàyyi parti yi ñuy jël di ko créer ci biir Benno Bokk Yaakaar dimb boo njiitu réew mi te ànd booloo doon benn ci biir bennoo ba tey ci diwaanu ndakaaru ki la jóge bu yàggul di ku ñu dencoon ci kaso boobee bam ñàkkee fa bakkanam di François Makabu jot nañu ko denc tey ji foofee ci armeelu Saint-Lazare de Béthanie tiis ak nakar la ko ay mbokkam xaritam ak am di jàmm teewe te bunge ko ci këram bu mujj boobee dañuy dem foofee ca jas ginnaaw ba maire bu commune boobee joxe ab ndigal ngir génn ñenn ci askan wi nekk ci li ñuy woowee suuf bi nga xam ni fala lii di ex centre d'enfouissement technique waroon nekk ñu jóge fa maire bi nag taxaw na tembe ngir jël lile di huissier ngir mu jëlee leen fa moom nag mi ngi xamle dina gën a indi ay leeral ci suuf soosee tis dal na lii di nguur gi ginnaaw ba kenn si ñoom ku bokkoon ci ñoom jot na ñàkk bakkanam kile nag di El Hadji Dame Ndiaye nekkoon fi ancien secrétaire général bu assemblée nationale moo génn pa àdduna tey jilee dinañ ko denc nag foofee ca Touba ginnaaw ba nga xam ni kile di ancien tigre bu fas am na défaite bu yàggul dara moom nag di Gris Bordeaux amaat na combat dox si digganteem ak kii di amaa Baldé ubbi teg fanweeri ak juróom ñaar phase national bu Sénégal dinañ ko door ëllëg bu cadet yi ak yu senior yi waa ONCAV nag ñoo ngi xam ne ni def nañu seen kéemtalaay kàttan ba door bi lépp jongante ci lu mucc ayib te dinañ tekk ñi ko sekk ci ay yoon yu leer ba mbiri antu ci jàmm Karim Xuru Xaax naka la yoon teg loxo gannaaw ab mars bu ñu amaloon ngir génn kii di Amy Dia muy giñ ànd bu mu ànd ak ñi ñuy woowee ay force spéciale Gana Gueye di milieu foofee ca Paris ginnaaw ab diir bu mu toog jouéwul day mel ni mi ngi bëgg amaat chance ak équipe bi di Everton mbay Niang nag jot na signé foofee ca Auxerre Touba Serigne Mountakha nag moo doon dalal ki nga xam ni moo di Serigne Ousmane Sonko moom nag mi ngi xam ne ni xelub xalif général bu murid bi bu baax a baax ci ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko ak li mu nar ci réew mi xibaar yi nag dinañ ko ndar keppel ak kii di euh, golden boy de la musique sénégalaise di Wally Seck ginnaaw ab featuring bu mu amaloon ak kii di Chris Brown ak Derulo moom nag tey xibaar yi fësal na ni featuring boobu noonu nag mi ngi bëgg a antu mbokki internetu seen acti tv tey nag li lañ leen indiloon ci li gën a fës ci xibaar yi di daje ëllëg ci yeneen information di leen wax ni rek laata loolu woy abonné te bu leen di fàtte di bés lii di cloche pour di am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen information fii ci seen seen chaîne ci TV la seen au cœur de l'information